ñu ñëw ci nettali fanweer bi ak ñaar maam Ceerno radiyallahu taala anhu bi ñuy tàmbali liggéey bi xaddiyaam daa ñëw te bari lool sëriñ bi laaj ko ku la ko yëgal mu ni ko diw muy xalli yu sëy sëriñ Tuubaa xaadala wala maxtaar ni ko waawaw bërëb bi danga fi nekk wala nga am ko la fi nekkal kon sëriñ bi day koo xam ni ñépp ñoo ko bokk fu mu toll itam mi ngi ci yoo xam ni du ko may muy waxak ko ne loolu moo tax muy wax maam Cerno loolu radiallahu taala anhu ndegam da koo nekkloo ci yeneen liggéey ba mënta nekk njaareem itam jaadu na mu am koo xam ni waayam lay doon ñu koy xamal li sëriñ bi nekk ba mu ci mën a ànd moom walaw alam mas naa am buur bu bëggoon a siyaare sëriñ Tuubaa xaada laxo la maxtaar laxoo ci njaareem waa kër gi mel ni dañoo amul naqar ci loolu sëriñ bi woo sëriñ mën num mel ni ko waral ma kër gi loo fi gis lu ñu jëfandikoo ba wàcci ko nga andil ma ko mu wër wër gisul dara mu wax ko ko sëriñ bi ni ko sama kër gi lu suñ boroom bëggul di fi dugg kooku ngeen di wax bàyyi leen ko bu fi duggee rekk ku suñ borom bëgg la siiw na walla wér na lool li xayrin taxaa bil muntaxaa kullu di shaqaa wayan xamu bihi naxwi sahidun wasoo tuqaa li muy firi képp ku nar a texee di faneen lay jëm man kiy jublu ci man ki may dëgmal mooy ki amuk texe ak ki ragal yàlla loolu si sëriñ bi wax bayit wii ak bayit wii lay nurool xuloobu jumlati lesiina aflaxoo li yatawajjahat wa rabbil muslihu mooy mbooleem xol yi mbooleem ñi nar a texe rek sunu boroom da leen xëcc ñu dëgmal si ci man naka noonu it ku koy jublu ngir lor ko it nee na ramal ilaahu laa shay'a yuhjisuhu sha'ni wa man amma durri xaana manhaahu mooy sama borom mi du tële dara yéwél na ne sama mbir yépp kon képp ku may jublu rek ànd ak lor kooku maanaam ak toroxteem ak gàccaam teew na sëriñ bi nag léppam ci yàlla la jëm moo koy defal moo koy dindil su ko defee ñun taalibe yi di ànd ak moom li gën ci ñun mooy ñuy topp ay ndigalam di bàyyi ay tereem ndax day gis lu ñu gisul di xam lu ñu xamul walaaw alam sëriñ tuubaa xaada lahoo lahoo maxtaari lahoo mas naa jox sëriñ bàll faali jeng jaali batal maraaxib ni ko ku ma yebalati ci yow nanga ko ko jox mu koy jàng ndax fa ma tolloon ba def ci ñoom fi ne dama amatul jot gi xaside gi nag moo ma ci wuutu sëriñ tuubaa xaada lahoo lahoo maxtaari lahoo lu ko wuutu lu màgg la yal nañu yàlla dimbule ci fonk ko ak warmaal ko mi nga wax ci biir wa bi kitabatiya rabbi rabbi kulla mutaaliin li wacci rabbi li muy firi mooy yow sunu borom ci sama mbind képp ku ko yër nang ko ci tërbiya ngir jëm mi yàlla man nag li ma yaakaani moo gën ci ñun murid yi ci xaside gii mooy ñu koy jàng di ko bind mel ni bu ñu mokkalee fukki way ak ñaari bis bu set ci moom ba mu mokk lool ba mel ni faatiye ñu daal di bind lu man ñeen fukki way ci moom bu ñu koy topput noonu bu jeex ñu tàmbaliwaat danañu ko bind lu mat fanweeri yoon te bu lépp mokkee dana fekk mu jaxasoog sunu deret lool fi mu ne nag ku dul jaar ci yoon wii ma wax mën na laa yóbbe leneen waaye doo ci àgg fa ñu war a àgg bu xasee ba mokk ci yoon wii ma wax daanaka manees na koy jàng yoon bis bu set tey bañ wax te muy doon guddi mooy li gën weer wu nekk nga bind ko benn yoon wala juróom benn weer yu nekk wala an mu nekk wala alam wa kaana xaqan ak ikfini sëriñ tuuba xaada lawo law maxtaar lawo daana ko jàngalu suba ngoon loolu li muy tegtale mooy màggu xaside yii bu dee wakkaan xaqan bari na lool ay nettali yu ñu ci nettali ci digle gu ko sëriñ bi daan digle am na sax ñuy wax ni daana ko jàng naka noonu ik fi nii bari na lool lu ñu ci nettali loo xam ni ci sëriñ bi la jóge boo ko yëree itam danga xam ni waxiinu ku jige yàlla la subhaanahu wa taala wala alam bi sëriñ bi nekkee njareem daa am bis mag ñi bëgg a xam xasida yi daanoo yàllaahu te sëriñ bi xaadalawoo la maxtaaloo defoon leen ak eg fi gu ci ëpp doole ba mujj ñu dajale ab neexal jox ko sëriñ Bachiru radiallahu taala anhu ngir mu laajal leen ko sëriñ bi sëriñ bi ne ko eg fi ba ma koy def fekk na ngërëm yi ma saa di jox jox na ma yépp ba desee lu ma lenn lu mu ma war a jox yàllaahu yëg ko njëkk nag ni mu demee ak fi nii mi ngi mel ni buur buy nelaw wut aw yatam jox ko borom doole mu koy wattu ik fi nii nag bi ma ko liggéeyee mi ngi mel ni tata tata mooy ab làqukaay li naa kan tata nag jox ko mooy buur boo xam ni ña koy wattu ñépp ña nga ko wër mu tëdd ca biir di nelaw li muy xamle ba tey mooy màggu xasida gii loolu sëriñ bi wax itam wëtta tax ñuy bañ a jàng si ndiidi naan gi moo ëpp doole ndax mbindi sëriñ bi gu ci ne am na lu muy def loo xam ni ganeen du ko ca mën a fekk gis nga doomam yi ni ñu mel ki saayir noonu la mbindam yi mel ba tey lii sëriñ bi wax ni wax ñu xamee ni xasida yi ëppante nañ doole lool walaw alam ñu ñëw ci nettali fanweer bi ak juróom-ñaar soxna Faatija radiyallahu taala anhu nee na bi sëriñ Tuubaa xaada laahu xaada lahoo laahu maxta di liggéeyu néeg bi mu làqoo dama woo ma ñëw mu ni ma damay liggéeylu te bëgg nga toggal ma ab añ bu matub añ ma génn di xalaat damay war a wut gëléem wala nag waaye ba mujj ma defar ci xar yi ci kër gi ak ganaar yi ba mu noppee ma fab togg ga yut ko mu jox ko sëriñ ma sàmba radiyallaahu taala ni ko nañu ko jox fere yi ñu jëfandikoo ko daadi ànd ak man ba ca biir mu ni ma liggéey boobu yi ñu ma koy liggéeyloo wax naa leen lu leer ni leen tey jii laa leen di mujj a woo li ni leen kaay leen nas pusa bu liggéey ba àggee ku am ngeganaay wala mbàjji demal yóbbu ko sa kër te tëdd ginnaaw tey doo tuma woo kenn di ko nasloo pusa liggéey boobu kat yonente yu njëkk yi alayhimu salaatu wasalaam ak malaaka yi alayhimu salaam ak wali yu njëkkee ridwanullahi alayhim ku ci ne yaa ngay tawat sa boroom mënoon a rëcc ba barkeelu ci waaye nangeen leen ciy fasaaleel liggéey bi ma leen di liggéeyloo seen maam ya fi bàyyi woon bu yàgg am naa sañ-sañ andi leen léegi ñu mel nañu meloon bokk ak yéen liggéey bi ba mu noppi du yàq ci seenu dellu dara waaye duma ko def na ngeen leen fasaaleel ni ma daa am lu xew ci guddig biig yow nag danaa la ci musal tuuti guddig biig kat dañu ma wàcce ci bind wàcce ma ci julli wàcce ma ci julli ci yonente bi salallahu taala alayhi bi alihi wasabi wa ak jàng alxuraan julli nag cër miin na ko ba cër yi mënatu ko bàyyi bu waxtu jotee danaa julli waaye amatuma sañ-sañu jiite kenn ndax kuy julli farata du roy ci kuy naafile te moom li muy julli naafile la ndax waratu ko soxna Faati Jara day la taxaw nee na néeg bi mu doon wa wax lii néeg su la ma nga fa teg ak rombu jaan goo xam ni ay téere la ca teg ak xaalis su tege ci sagar xaalis bi suma ma soxlaa dara ci laaj ko lañ wala dara ci laa koy jënd loolu ko bi wax ni ko xaalis yi kat su ma soxlaa dara ci laj ku lañ wala dara ci laa koy jënde mas ngaa gis ku moomoon lépp ba mu yàgg moomatul dara xaalis bi ci kër gi li muy bëri bëri amatuma sañ jaay ci benn dërëm saa boroom nee na biig loo amate asaka ak lii dikk sa ginnaaw amatoo sañ-sañu jëfandikoo ci dara te boole naa ci jaay dugub bi suuna xeetu dugub la jaay mooy bàyyi maam jaayante naa ci dugub bi suuna duma ko jëfandikoo dootuma ko jëfandikoo bu mu waxee lii daal di daal di sujjóot siggi ni ma sujjóot bii sanc naa ci ñinde lu gétt àdduna def ci nekkukaay yu rafet yoo xam ni seen misaal amul ci àdduna ci diir bu gàtt danaa dem ci ñinde loolee bu boobaa nag dangeen dikk ba fi man di wax man may dégg waaye dootuñu gisante ñinde li mu wax ñinde mooy tabax bu rëy a dañ leen daal diir bii ma sëggee ak ma siggee tabax naa fi dëkk bu rëy rëy boo xam ni moo ëpp gé mooy ëpp waxee ni salam la moo ëpp adduna ni leen diir bu gàtt nag min ne loola mooy tabax booba ma tabax dinaa fa dem booba da ngeen dikk fi man di wax may dégg waaye bu boobaa duñ gisanteeti soxna Faati lexlaas yi gàtt na waaye mbiram gàttut ba tey sëñ bi mooy waxtaan ak soxna Faati ja ni ko Faati ja li gàtt na waaye mbiram gàttul su ngeen demee ci guddik ajjuma ginnaaw bu ngeen jullee gee def leen fatiye ba mu yegg ngeen julli ci yonente bi sallallahu taala ali bi alihi wa jàng ñeen fukki lixlaas julliwaat ci yonente bi sallallahu taala ali bi alihi wa wax ni jàngal naa ko julli yi faatu yépp ak ñi dund ak ñi juddoogul te suñu juddoo nara doon ay jullit su ngeen ko defee ñu njëkk a faatu ba ca ka mujj faatu ku ne dana am yoolub ñeen fukki lixlaas ku ciy def loolu ba dem yowmal xiyaam loo mën a séq ak doomu aadama yi bu la bëggee tee sunu borom subhaanahu wa taala da ko naan bàyyil kooku mu dem mbaa yàlla la mbaa yàlla mooy ku ñu topp dara kooku kat daa farlu woon bay may ñi mu nekkal di yóbbante ñi nekkut ak moom di batale ñi fi jóge amula kenn xaq xaqi ñaari waajur nag lu yéex a wàcc ci doomu aadama la ku ci bëgg sa xaq yi ñaari jur wàcc la foo sëlmalee julli juróom jàng faatee benn yoon jàng lexlaasi ñetti yoon fàllaxi ak naa ci ku ci ne benn yoon jàng ayatul yu benn yoon julli ci yonte bi sallallahu taala alayhi wa sabi ni jàngal naa ko sama ndey kuy ñaanal ñaari jur nag ne ngay jiital ndax moo ëpp xaq ci doom boo noppee jàngaat ko ni jàngal naa ko sama baay lii ku koy def ba dem bar sàq doo am àq ñaari way jur bu ñu fi bàyyi ko itam dana mel ni yaa ngi dund ak ñoom di leen liggéeyal liggéey ba gën a rafet wér na nettali baa ngi kenn mënta jeexal li ci nekk bokk na ci li ma ci déggee màggug liggéeyal Sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaarloo gis nga loolu mu wax ki liggéey bi ndax ba léegi mënees naa liggéeyal Sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaarloo loolu laaj la boo xam ni maa ko fas yéenee tontu Sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaaloo bind wax ni du faatu li des ci àdduna léegi nan lañuy jëflanteeg moom mooy taqoo alxuraan bu wér moo xam ñaar fukki xisib lay doon te mooy li gën wala leneen ak di jàng xasidaami lu bari rawante na ak jaalibatul maraaxib ak mafatixul bishri ak nooru daarani lii bu ñu koy def tey moytu bàkkaar yi day mujj muy liggéey ci ñun loolu mooy murit bu nekk am na lu mu tànn ci yow ci xeeti jëf da koy daldi neexal ci yow di la ko xamal ba nga xam ni lii mooy li mu bëgg ci yow ci lu dul benn sikki sàkk bu boobaa nag la ca des mooy taqoo loolee loo ko gën a di gën a gis ay njariñam walla alam bokk na ci li ma déggee ci waxtaan wu gudd wii nga xam ni kenn mënu koo jeexal màggu suratul ixlaas ndax yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa nee na ñetti lixlaas aku kaamil ñoo tolloo bokk na ci li ñu war a xam xaq kenn du ko baale kudul boroom jamono ji ñu toll nag ñun moo gën a aajowoo lii sëriñ bi wax ndax xaq yi bari na lool lool te lii ndimbal la lool ci bépp murit yal nañu ci yàlla saxal bu ñu fàttee li sëriñ bi waxoon ci fukki lixlaas ak ñaar ginnaaw julli gu nekk walaw alam ñu ñëw ci nettali fanweer bi ak juróom ñaar Sëriñ Tuubaa xaada lawoo law maxtaar lawoo nee na ñu ànd te wanantee ginnaaw bu ku nekk waaxoo genn wàllu waxtu léegi ku geesu doo gis sa moroom ku la gisul gisoo ko du la sonal ah loolu moom yàllaa xam xëy na day leeral ci kuy tuddoo te awut fi mu aw walla du ci jëf wala du jëf li muy digle man xaadimu xadim li ma xam di ko bind mooy sëriñ bi kenn mënu ko nax du nax kenn itam taalu bi mu nekk kem ni nga àndeeg moom ni lay àndeeg yow walaw alam sëriñ Tuubaa xaada lahoo lahoo maxtaara lahoo mas naa toog ak ku ñuy wax sëriñ Moor Baraana fii ci Daaru Xudóos ni ko diggante fii ñu toog ak ak fa sunu boroom di péncoog jaam yi péncoo mooy dajale jaam yi di leen laaj jërul solo dàll waxu maag waru fas dani ko fii ñu toog ak fa sunu boroom di dajale mbindee fi ëllëg jërul solo daal waxuma ak waru fas loolu dañuy xamal bayit wi xuluubu zawil odwaani sixat li xayrina ka abdaanihim wallahu li maskani yubxi negeem dëkk bi day des mooy waral ñu fi taxawale bis pénc loolu itam moo waral mu wax ni yonente bi salallahu taala alayhi bi alihi wa dikk na fii fi moom ak kaxba ga walaw alam bi sëriñ tubaa xaadalahoo law maxtaar lahoo di dóore ñëw gànnaar daa dajale taalibe yi ni leen tey yàlla dogal na ñoo ngi fii ci gànnaar maa ngi leen di digal na ngeen góorlu ci sama ndigal ku bañ a góorlu ci sama ndigal ba dellu ca réew ma jigéen di la digal ngay daw di ko doxi kanu doomu aadama bëggul lu naqari gannaar yi itam neexul booba sëriñ bi itam du noppalu wenn waxtu boo gisee muy soññu taalibe yi daa bañ ñuy am genn dellu ginnaaw ci ay mbiram ci la sunu njariñ nekk loolu mu wax jigéen loolu mu wax ni jigéen dalay yónni loolu mooy ñàkk barke rek wala alam bi muy waaje jóge gànnaar daa dajale mag ñi ni leen tey maa ngi bëgg ngeen xam ni fi doon def mat na nañu jéem a dellu ni ngeen yenu sama yére yi ak yére yi mustapha ak fadilu te ngeen ànd ak ceerno am na bu nekk ca dagana Ceerno xam na ko am na yére yu ñu fa war a def bu ngeen fa yeggee Ceerno dana leen wax yére ya ñu fa war a def ñu def ko fa dañ leen daa am gàddu gu may jaar waaye maa ngi topp ci seen ginnaaw ñu tàmbali di waaj ba ca suba ngir bërug taalibe sëriñ bi woo leen ni leen démb laa leen waxoon na ngeen waaj ànd ak Moustapha ak Fadilu ak Ceerno te yanu sama yére yi ak yére yi Moustapha ak Fadilu ngeen di waaj ba nagani waaye dama leen ci bëgg a dolli leneen faadilu mii nga xam ni ndeyam sërif la baayam sërif la ku bëgg lu baax war a yanu yéreem yii Moustapha mii nga xam ni amintaloo ndeyam yow yowmal xiyaam man maay taxaw di ko tagg mel ni géwalam kooku taxul kenn di wax ñu daal songu yére ya songu mooy maam dal ci kawam ànd ak Cheikh Moustapha ak Serigne Falilou ak maam Thierno siiw na sëriñ Touba mas naa woo ku ñuy wax sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye ni ko loolu ma dégg walla fi naan sàmm mënul ganna kanamam man gannaawam mii sàmba loolu dalu ko mii sàmba mooy moom moom sëriñ Touba xaadalawo law maxtaar lawo li naa sàmm mënul kanamam man gannaawam nee na moom loolu dalu ko sama njaboot gi su ma dëddoo ku leen bégal maa lay fay ku leen tooñ maay fayu loolu war naa tax benn murid wëtta tooñ ndax koo xam ni dañu lay fayul danga war a muñ tey jéggale walla alam Sëriñ Tuubaa xaada lawo law maxtaar na ku sama waay mu naqari la li fekk ngay dégg sama tur waa joojee musibam yàlla du xëppi ci sa kaw la lay musal daal mooy dema dem ba dootoo dégg lu bokk ci sama tur waa te sama waay ku ko laal sama kuur gi ma yor bu ma yegsee bala maa laaj lu xew day dal ba noppi te fu mu dal mu nooy bu ma ko dóoree ba foofa nooy ma samp ko laaj nag lu xew noonu nii laay walloo sama waay kon kan mooy waay sëriñ bi ku dul tooñ kenn te ku ko tooñ du fayu di jëf ndigal yi di bàyyi tere yi kookoo mooy waayu sëriñ Tuubaa xaadalahu law maxtaara lahu allahu walliyu lasina amano wala yansurana allahu man yansuruhu inna allaha yudafiu an illazina amano sëriñ Tuubaa xaada lahoo laaw maxtaar lahoo nee na bu nit faatoo ba ñu sàng ko ba teg ko ca bàmmeel ba jëf yi day randu si bu fekkee jëf ju bon la woon mu buur di xuloo moom naa ko loo fi wut nit ñaak xarit ya ku ne buur di wane ni nii laa toll ci moom naan defar leen néew bi néew bu dëng lu baaxut mel ni da koy taxa texe wala da koy tex texe texee di mu naan jëf ji loo fi wut jëf ji naa ko dencal sa làmmiñ wuréy wii tey man rekk ngay gis bu ñu ko dugalee ñu daal di roofoo roofoo mooy booloo mel ni kuy xeex ñu fob suuf ak ndox ak bant teg ca kawam te naan ci yàlla ñu nekk ca biir di dammante maam koo néew ba ak jëf ja nekk ca biir maam di dammante mooy di di xeex rek sëriñ bi am na waxiinu wolof wu ràññi ko lool te neex woo xam ni ku ko dégg xam ni amul benn yokk amul benn wàññi waaye am na waxiin yoo xam ni boo ko déggee da nga xam ni ci moom la jóge waaye làmmiñu kiy nettali moo koy soppi loolu leeraloon naa ko ci waxtaani sëriñ Tuuba xoolaat ko bu baax wallahu alam sëriñ Mouhamadou Lamine radiallahu taala nee bis Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaloo dani ko ndax xam nga ñaari bayiti Abdalla atta mag liyu addaymaani radiyallahu anhu mu ni ko déedéet bi daade ko koy taril alaamil ila daari salaami wa tuuba isaa xifta min raybi zamaani qutuuba li tasfara min xawsil zamaani bi nasratin tanaalu biha xusnal maabi wa tuuba mu nettali ko mu mokkal ko wér na lool loolu dañuy gën a ni sëriñ bi yëg na lool waaye ndax li muy mokkal ba di ko laaj keneen ndax xam nga ko ñor na ko lool walaw alam am na ku ñuy wax Abdullahi ibnu Salaahi Attandari Sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaarloo da ko masa wax am na xasida gu fi nekk goo xam ni ku ko mokkal munkar ak nakiir duñu la laaj ci bàmmeel mu ni laa ilaha illallah anamu sëriñ bi ni ko mi ngeeg Muhammadu Lamin moomu mu ni wallahi danaa ko mokkal danaa ko mokkalal samay doom ak samay soxnaak samay jaam ak ñépp di lim rek sëriñ bi di muuñ xasida googu mooy jaawatu wér na lool kon xasida gu nekk ak njariñam mel na ni xasida gi njariñam mooy musal la ci laaju mbàmmeel yal na ñuy taqoo mokkal ko walaw alam Abdullahi mii sëriñ Mouhamad Lamine Diop radiallahu taala xanu nee na mas na koo yónni ci sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaloo am ku mu bëggoon ci ay doomam ni ko boo gisee ma koy bëgg dama bëgg lu ma gën a jaxaseeg moom tey ak ëllëg sëriñ bi ni ko noonu mu ko waxee ni la amee ba may nekk fa ñoom bëggoon nañu ma denc ci seeni doom ma ni leen wuuteeg xaada yi mooy bañ loolu du leneen wér na lool kon xam nañ ni sëriñ bi li muy bàyyi xel ci mbir yi bari na lool fi ne dëppoo mooy li gën a am solo te mi ngi sababoo ci loolu mu wax ba tey danañu xam ni ñii denc ci waneen xeet moom li ñuy def jigewul sëriñ bi ci dara yal nañu yàlla aar te musal ñu ci barkeb sëriñ Tuuba xaada lahoo lahu maxtaara lahoo wala alam am na naar bu ñuy wax alhaaji ibrahim mas na ànd ak sëriñ Tuuba xaada lahoo lahu maxtaara ñu yellu ci ci ak garab mu génne jumtuwaayu tuxe di ci def poon daal di laaj sëriñ bi loo wax ci lii sëriñ bi ni ko tee ngaa def rekk te bañ a laaj mu ni ko mënta ñàkk ndax wuute yi daa bëri am ñu koy daganal am ñu koy xaraamal sëriñ bi ni ko kon daa lënt ci yow mu ni ko waaw sëriñ bi ni ko xanaa gisoo laxdar yu mu ni ko gis naa ko sëriñ bi ni ko wax na ca tàmbuli ba dëgganul ci menn mag muy def loo xam ni xamul la ca yàlla at mënoo woon a taxawlu ba xam li ci yàlla at wax jooju dugg ko lool mu sëgg lu yàgg siggi ni ko seedeel ni bàyyi naa ko ngir yàlla daal di koy suul ca booba bis wala ginnaaw ba ci la jébbalu ci sëriñ bi wér na lool loolu sëriñ bi wax bari na lool lu ci mën a dugg day mel ni mbir yi ñett la li xaraam bu wér li ñu li ñu sib bu wér li nga xamul su ko defee ku bàyyi yii yépp mucc na ci lépp luy lore wala alam Muhammad Tuuba radiallahu taala xanu nee na muhammad fall mas na ko yobante ab siyaare ci serigne tuba xaadaroo law sakko walé ci mom mubbu mu muy barkeeloo bama ko waxé serigne bi mu bég ci lool jox ko turki bu mu daan sol ni ko gaawal yet ko bama ko joxé mu bég ci lool diko fon diko tek ci bopam ñu bari dégg ko di ñëw ci mom bëgg ci ba mu mu waxaat Muhammadu Tuuba ni ko dama bëggoon nga demalaat ma ci Sëriñ Tuuba xaadalaw la maxtaaraloo ni ko sama barkeelu ba nit ñi sànq nañu ko na ma joxaat baneen ba mu ko waxee sëriñ bi mu bég ca lool joxaat ko baneen mu ñëw jox ko ko mu bég lool sant lool walaw alam ñu ñëw ci nettali juróom fukk bi Sëriñ Tuuba xaadalaw law maxtaaraloo nee na ñi nekk ci sama wanag wi wan mooy mooy bërëb bi ak ña nekk ca wanawug yélle ñoo yem képp maa wuuteeg yëlli moo mu ne xëy na yëlli daa mel ni rek ni ñuy waxee Samba ak Demba wala xaj na yëlli doon ku ñu xamoon waaye wallahu alam sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaara lawoo mas naa wax sëriñ Mor Jobe saa boroom mi dogal moo dogal ma sopp la sëriñ Malik Basin si radiallahu taala anhu nijaayam mas naa tawat tawat ju metti mu ñëw ci sëriñ Tuubaa xaadalawo la maxtaara lawoo ni ko dama bëgg nga bindal ko saafara sëriñ bi ni ko jox ma xaliwa jiyee mu jox ko ko mu bind ca ba mu fees mu raxas ko ci ab këll këll defukaay la jox ko ni ko boo demee na ko naan te lu mu wax nanga ko diglu te jàpp ko bu baax boo dellu see nga nettali ma ko ba mu doy loo waxtu guddi la àgg salum jox ko ko mu naan ko mu def ko biir buy yëngu fanaane ko ba bët set muy wàccu ba génne lu mel ni aw dog wu nuroog aw res nes tuuti mu faatu sëriñ Malik jël loole mu wàccu àndaale ko wan ko sëriñ bi mu koy xool ba mu yàgg mu ni ko Malik yaa ka dimbale sa nijaay li tax ma wax la loolu mooy sa nijaay li muy bëri bëri ñu mu jàngal alxuraan te bu faatu waale woon lii safaanub aljana la jëm lii mooy ak day sax ci biirum nit mel ni ab car ku ko faatuwaale fawu nga dem sawara ndax cërub sunu borom la subhanahu wa taala motax manila ya ka dimbulé sa nijaay ndax dañu gu gi mi nga sababo ci yow siwna serigne sëriñ Moussa Ka radiallahu taanu mas naa ànd ak ñaar ño xamni dañu bindon kamil bëgg ko jox serigne Touba khadalahu allah lahu biñu yaksé mbolo mi bari lol leg leg mu yëngatu bañu ñu day genn mu defa tek ba mu génnee tàllal loxoom bu tedd ba wax ni dama ni ku amewul alxuraan bu mu agsi mbooloo mépp ni teg mu ni nañu xeddil borom alxuraan yi ñu agsi ñu daal di def aw yoon bi ñu jubee sëriñ Tuubaa xaadaloo law maxtaaloo ñoom ñett dalee na gàttandu këf kaamil ya taf ko cib dënnam ba mu amum diir am ku dugg ci biir andil ko ab der mu ne xàkkasaa daal di teg kaamil ya ca der ba teg ca ab dënnam ba mu amub diir mu jug taxaw tàllal baaraam bu tedd ba wax ni koo xam nga bëgg nga saa soo xëyee di xëy ci sunub tool dinu fawil fawil mooy summikul boo xëyatee xëyal ci alxuraan da ko wax ba muy ñetti yoon daa di wax ni tabaraka allazi bi yadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir dugg ca biir ñu toog tuuti am kuni sëriñ bi fattu na ba subaati sëriñ bi xaada lahoo laaw maxtaaloo nee nit ñi njariñ la ñuy wut fu ñu mën a jëm te njariñ man maa ko amee duma ko def ci alxuraan duma ko def ci julli duma ko def ci wirdu ci sama mbind mii laa koy def ku ma bañ waccil ma ko fi sëriñ alzey njaay radiallahu taala hanu mas naa siyaare sëriñ tuuba xaadalaw xaadalawo law maxta lawoo ci njëreem sëriñ bi ni cey ndaxam saa doy na waar sëriñ bi ni moom mii jekki naa ba mu guddi dendumaag góor dendumaag jigéen ndare yàlla saabaroom di xalam mbiram ak mbirum ahmadu kan neena ñu mag ñafa togon seeni dënn recc serigne bi ni waaw waaw mom mi fi ne subhanahu wa taala day faral di safaanoog cërub aduna lol ñi serigne bi di tudd ko ci gis do ko foge len walaw alam serigne touba sugu ak serigne bamba sugu ak serigne muhammadu tasrif sugu ginaaw bi serigne jeri wadan radhiyallahu taala nu ab liggey dañoo ànd fekk sëriñ bi xaadalawoo law maxtaalawoo ci njareem ba ñuy dellu mu jox leen ak buum ni leen bu ngeen demee na ngeen ko jox ma samba bu ngeen demee ba ca diggante kër ma samba ak kër ñang mu nattal leen fa nangami xasab mooy meetar ngeen def ko kër li ma ci jublu mooy moodu faajama ñang tanu dama dégg bën na foofee ab teen moodu mustapha la taala hanu ñu wax ma ni bënn na foofee ab teen ma xam ni bu ngeen nexee diggante boobee du ngeen mar bu ngeen demee ngeen toog te bu leen mar wa dàq ndax li des ci àdduna laaj naa ko saa borom te tuubaa la ma koy joxe siiw na kon ñun waa tuubaa war nañoo xam ni xéewal yi mat na lool te day gën a dolliku waxtu wu nekk yal nañu yàlla boole ci murid yi soppi soppi jamono te jamono du leen soppi ci barkeb Sëriñ Tuubaa xaada lahoo laahu maxtaara lahoo Sëriñ Tuubaa xaada lahoo laahu maxtaara lahoo nee na ndaxam moos war ngeen a góorgóorlu ndax kenn ci yéen ku ne suba gu xëyee ba jant so ñaari malaayika yi ñaari malaayika ngi ci kaw ay mbaggam malaayika mii ci ndeyjoor lépp loo def ci lu baax walla nga wax ko bind na ko mii ci wetu càmmooy lépp loo def ci ab safaan wala nga wax ko bind na ko koo xam ne nag am nga koo xam ne nii bu malaayikam yooyee di gont dañuy fob téere ya jaar fi moom lu ca mata dindi mu dindi ko da ngay góor góor daldi ni gees sëriñ masàmba ni doomi masàmba jóob ji de jub na sëriñ tuuba xaada lahoo lahu maxtaar mas naa wax cheikh ibra faal radiallahu taanu ibra faal boo génnee ci réew mi loo xam ci man lu mu tuuti tuuti bu ko nettali ñetti yoon mu dem dikkaan ni ko koo wóoluwut wóoluwula ma nit lu ma la liggéeyal lu mu tuuti tuuti bu ma ci fay dara ci fii ci àdduna sëriñ bi ni ko sàmm bi bu jiitalee géttam ba ca mbalkaam mbalka mooy fi ñu def ndox wékk goj a mag baagam koñ mooy li ñuy duye ndox mi mu dig buum baag mooy def ndox mi mu ni ko bu demee ba ci fa muy wëgge wékk wékk gojam ak baagam yor ko ci teen bi ba mu àgg mu làbbali ko ba mu fees mu di ko jukki ba mu ba mu yar yar mooy feeñ xëy na ba mu yar pind ba mu di ko tawit tawit mooy jël bu gaaw lagg wuti mbalkama di ko ca sotti ndox yay rot ci diggante pind ma ak mbalkama ndax sañ na koo bañ mu ni ko déedéet Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaralawoo ni ko loo ci àdduna noonu la deme am na yoo xam ne mënoo koo ñàkk a waaye loo gis lu mel-mel rek day ni loola di toqi ca baag booba ak la ca des noonu mu toll Sëriñ Tuubaa xaadalawo law maxtaar ne nee na ku yokk samay wax maa nga wàññi ko xurwu tàng wa ñetti noor boo ca dëkkulit ak seeni nawet danga ko ca am xurwu tàng wa mooy sawara moom képp ku yokki waxam daal boo dëkkut ca sawara it danga fa am ñetti noor ak ñetti nawet Sëriñ Tuubaa xaada lawoo laaw maxtaar lawoo mas nay jàngulu ak xasiida ba ñu agsi ci bayit wi taqdimu ahmad ibni abdillahi yaarifuhu gayru rabiyillaahi mu ni nañu ma wool ahmadu alxaaqiliyu mbooloo mi yéemu lool ba mu agsee sëriñ bi ni ko bi ñu tuddee bayit wi la sama xel dem ci yow moomin mu bëgg lool sant lool wér na lool Muhammadu Tuubaa radiallahu taala nee na sëriñ alhaaji Malik Si radi rahimahullahu taala mas na ko wax ni boo demee ci sëriñ Tuubaa xaada lawoo law maxtaara lawoo nuyul ma ko te fàttalil ma ko guddi googee ma ñëwee ci moom ca dakaar bokk ak moom fanaan ci benn néeg amul kenn ku ñu ñetteel ku dul yàlla subhaanahu wa taala bu ko fàttalikoo nga waxal ma ko ni maa ngi jokkale kóllëre googee ba tey nee na bi ma ko waxee sëriñ bi ba mu fàttali ko ni ko wax nga dëgg mu wax ko la mu wax sëriñ bi taggu ko lool nee na tàmbuli di jàpp noppam ak bakkanam di ree ngir mbégte wér na lool sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaloo mas naa wax sëriñ Mouhamad Lamine Diop Dagana radiallahu taala anhu ni ko Mouhamadul Footiyu mësuñoo daje waaye daana ma yóbbante bayit wii ila man xabbaahu llaahu bil basti wal unsi wa xakkamahu fi aalami jinni wal insi wax na ca biir xasida ga bayit wi ni fa subboo ala miskinikum fadlatal kaasi am na doomam ju tudd sonnooni saa su ko sëriñ Tuubaa xaada lawoo max maxtaa lawoo gisee dana xelli ab kaas jox ko ni ko loolu mooy li sa doon sàkku wér na lool ndax da doon wax sëñ bi ni ko na ngeen sotti ci seen miskin bi seen desiti kaase mooy fa subbu xalaa miskinikum fadlatal kaasi mooy doomam jooju saa yu ko sëñ bi masaa gis da koy xelli ab kaas jox ko ni ko loolu mooy li sa baay doon sàkku wér na lool sëriñ Mouhamadou Lamine radiallahu taala anhu nee na sëriñ Tuubaa xaada lahoo maxtaar lahoo nee na ko sëriñ Tayba saa suma masaa gis day tari way wii mel ni ku ci firndeel sama mbir wakam min abin wakam abin xat xalaa bibnin sura sharafin kama halat bi rasulillahi xaddu naanu bayit bi li muy firi mooy bari waana baay yoo xam ni seen doom moo leen jox ak kawe ni nga xamee ni waa xadd naan it ci seen doom jooju di yonante bi maanaam ci lan amee kawe bari waane daal baay boo xam ni ndam lam am maanaam ba doom ja moo ko ko may ni nga xamee ni it waa xadd naan ndam lan am yonante bi alayhi salaatu wasalaam moo leen moo leen moo leen ko may nee na fu gis siñ tay ba rek day tari way wow mel ni ku ci firndeel mbirum sëñ bi loolu mooy léeg-léeg nga gis baay boo xam ni doomam moo ko kaweel ni xadd naan kawee ci yonante bi salallahu taala alayhi wa sahbi wa salama mas naa ànd ak sëriñ tuuba xaada lahu law maxtaar lahu ci ak suba teel fii fi tuuba booba lay baa ngi bari lool ba mel ni lu lëndam nga xam ni doo gis bu baax sëriñ bi waaxu mu topp ci ginnaaw bi ñu doxee ba mu yàgg sëriñ bi taxaw mu japp ci bopam nal ko nal ko bes ko ba ndox mi wacc ñu doora jall bi ñu sore ci allu tuuba serigne bi wëlbati ko jublu xibla mu daal fak serigne bi julli ñaari rakka selmal niko ana ko la defoon fi rabu all noy def mu ni ko boo may def rabu all na nga mu dimbale ba buma def rab yu ndaw yi nga xamni fu ñu ne sus ñu ni ñu ni wop moy tew maanaa di leen di leen yuuxu bul ma def rab boo xam daal day tuuti ba fukk ko gis di ko yuuxoo kon danaa daw ba dee na nga ma boole ci nga xam ni ku leen seen daw sëriñ bi ni ko toogal fii ba ceeb ak suukar fekk la fi nee ñu booba jafe na lool ndar képp lañu koy ame sëriñ Tuubaa xaadalewoo law maxtarloo bis wax na ni ñépp siyaare si nañu waaye uwaysul xare ni yu radiallahu taala anu ko ginnaaw bi jàllee mu nekk di tomb di waare sëriñ njaase siise radiallahu taala anu di ñëw sëriñ bi ni o waysu mi ngi ci jëmm jooju bi sëriñ njaase ñëwee kaalawu ni sëriñ bi kaala woo jàkkaarloog sëriñ bi toog ni mu toogee far la sëriñ bi rëddoon ni ko bu ko fi tombeeti bu ko fi rëddeeti bu ko fi waxeeti defarnu siiw na sëriñ moor warx ñi ngi ci nettali juróom benn fukk bi ak juróom benn sëriñ moor warxa radiallahu taala anhu bokk na ci li ko mayoon ak jagle ci sëriñ tuubaa xaadalaw law maxtaaloo xam ni muy waxeek moom keroog mu njëkk a dikk ci sëriñ bi mu ni ko noo tudd dani ko muhammad mu ni ko foo bàyyi ko mu ni ko madina mu ni ko kuy say wayjur mu ni ko abdullahi mu ni ko kuy sa ndey mu ni ko aminat sëriñ bi xëpp ko téere yamu yoroon ni ko gën a nuroo moom nag yaayam soxna aminatu gay la tuddoon ñu koy wax warxa baayam Abdullahi awa kumba la ñu ko daan wax moom ñu ko daan wax mu war warxa mu dëkkoon Mirina kër Ablaay mel na ni xam waxin dana jariñ lu bari naka noonu ñàkk xam waxin dana lor bu ñu settantelee waxtaan dana ñu gis ko loru ci waxin ak ku jariñu ci waxin ci sëriñ bi walaahu alam sëriñ Tuubaa xaada lahoo laahu maxtaara lahoo loolu luy tegtale rafetu waxin wi ñu leeral ko ndax li ko sëñ bi ni nuroo nan ndax dañu ko noo tudd mu ni ko Muhammad kon day tegtale Muhammad yonante bi alayhi salaatu wasalaam mu ni ko foo jóge mu ni ko Madina moo tax muy tegtale Madina baayam di Abdullahi yaayam yi di Aminatu moo tax sëriñ bi ni ko gën a nuroo